Très bien, nous rentrons dans le vif du sujet, bien sûr, pour parler controverse autour de la candidature de Karim Meissawad. Nous en étions pas pour ce moment Mais Lamine Ba, nous avons dit que nous avons dit que présidentielle est née. Il y Nous beaucoup Karim du nous, dina candidat du sénégalais pour nous parler de en réalité wax politique vous mel noonu waaye yeneen ci dit mbir xam xeyna ñu mel ni ñun man xeyna duma du mais wax leen rek posé leen jàkkaarloo ak ñoom ne leen coow li bëri na ci Karim dana ñëw du ñëw fichier beeg ñeeg ñeeg nangam mais en réalité yéen a ci yeneen i mbir yoo xam ne yéen a ko xam ak ca ngeen nekk. <laughs> bon vous savez c'est normal ah je je comprends très bien mais avant ma lay répondre damay <laughs> may déglu madame mi ni. Awa Badji Awa Badji. Mm. mu wax ni ñun amuñu avenir waaw ah je pense que dañu jum une PDS soo xamee parti bi xam trajectoire am xam fi mu jaar li def depuis 1974 bataille, tey doo wax ne amul avenir je pense que boo xoolee Sénégal sait saytu parti politique yi fi nekk amul benn parti pour taxaw ci réew mi ne fukki at ak ñaar yi mu yor réew mi fi lii ci école def naa fi lii ci tali def naa fi ci hôpital créé naa fi li ci liggéey te lu ñu def la nit ñi ko bañu a werante donc ñu am aussi njiit bu toll nii waa Ablaye Wade bind ci du point de vue intellectuel loo xam ne kap ba keer foo wër ci àdduna bi tey réew yu bëri ñu ngi daw di wut kilifa bu toll nii Ablaye Wade ku war a mën a bokk ci ñoom pour di leen xelal ci seen développement dëkk su weesu bilan bi ma la wax weesu njiit bi suñu parti en tant que tel dañu nekk parti bu nga xam ne nii tey bu ñu wax démocratie Sénégal mu fàttali ne la am na ñeent fukki at ci ginnaaw benn télé am Sénégal ak benn rajo. RTS. ma fàttali wax la ne la am na ñaar fukki ak juróom ci ginnaaw Sénégal amuloon bañ gàccee pour ñu vote état bi mooy taxaw noot nit ñi ñu ngi xool ñuy voter pourquoi ngeen di voter contre état ñu leen di xañ seeni i droit ak seen i devoir yi nga xam ne seen yelleef la amoon fukki at ci ginnaaw Sénégal tey pour nga dugg Ndakaaru doo fi jaar li yëpp donc ñun ku am parti bu toll noonu loo ragal li ci kanam surtout nag ñu nekk parti bu nga xam ne nii. ñi ci nekk ku toll noonu loolu yëpp Lamine Ba ku toll noonu bu loolu yëpp ñëw ba 2011 coow li bëri ci élection yi nga wax ne bu ma fi jógee dinañ toog 3 mois yoo xamante ni nit ñi duñ fayeeku ñu gis à la limite ay xeetu scandale yoo xamante ni en tout cas ci jeextalu euh, réñam et pourtant ci ginnaawam li nga wax ni yëpp dafa rafet dañ koy nangu. lu am la lu ñu mën a teg.

dama bëgg suñu waxtaan ñu ñu structurer waxtaan bi ñun bàyyiwuñu fi réew bu ñu mënul fay salaire. bàyyiwu leen ko fi. déedéet lu tax mu waxoon ko. Euh, da ngay jël wax boobu nga delloo ko fu ko waxee ak lu taxoon mu wax ko. fan ko wax ngi ko waxee méridien. Hmm. boobu dafa doon expliquer doxaluñu réew mi ni lii bu ñu ko toppee. Hmm. ci noonu bu dinañ dem ba duñu fay salaire. bu ñu fi ñu toll tey. bu toll tey fi ñu toll tey hmm. Sénégal. Il y a ñu suñu budget réew 3 na presque 900 milliards. Mm. fi may wax pour la première fois dans l'histoire du Sénégal. nous mm. toog ndakaaru ay Yalla nit ñi di am problème mm. pour un pays qui dit avoir un budget de plus de 4 000 milliards. le Sénégal la dette du pays réew mi su mu dañuy

loolu moo tax ñu jëlee ñu fi il faut pas. ci lan ci lan exactement. mais am na ñu jàpp ne ñun ni ñu doxalee woon ni ñu yoree réew mi du noonu. xaaruñu ko ci ñun. am na ñeneen ñu jàpp ne ci benn fànn bi ñu ngi ci doon xaar ci lii kontaanoo nuñ ñu dem élection nu gagné ñu. dañu war a toog ñu remettre suñu bopp. ci en est-ce que du ci euh, ticket bi car bloquant bi moom moo. moom moo indi loolu. ba léegi nii ah. Hmm. bu ñu amoon jot pour waxtaan ci xam-xam. Hmm. gu guñu. neen tikkale loolu parce que qui n'est que même ministre de la justice Tokna, nous mu dem émission avec Alassane Samba Diop ni le 23 juin nous un ticket car bloquant d'accord spéculation donc il faut bari est-ce que nous avancer les pour nous avancer maintenant sur le cas de Karim oui Karim Wade c'est un militant comme man comme je pense que vous faites continuer Papa papaam dogal comme rien ko bi ñuy jàpp Karim Abdoulaye du ko joxe danaan keneen ci parti bi demal trois ans. non non laisse-moi terminer laisse-moi simple. dama lu mu dama xam lu mu est-ce que du ngeen wax ni Karim Meïssa Wade mënatul a ñëw wala nekkul ci condition pour bokk ci élection présidentielle yu ñu jëm. Ou ah, léegi coow lu jeex. wala boog yeneen ci yeneen lu ñu xamul. ñu wax ko ci li nekk. Hmm. Karim suñu candidat. incha allahu rabbi bu heure bi jotee dina ñëw Sénégal. yéen a ngi laaj signature nit ñi. Euh, lancé nañu suñu campagne de parrainage. léegi ñi ngeen di laaj seen ñi ngeen di laaj seen signature. boo ci dajee koo xam ne Lamine Ba day naan ah waaye yaa ngi may laaj sama signature léegi ma la ko joxee fan nga koy sànni. waaw xam nga. kan may waxal anamu. xam nga mu ne ci lu mu ne xam nga lu gën a graaw ci dëkk bi. Hmm. mooy ñu nekk ci sous perfusion psychologique.

fi nga ko sàccee. ba man li may laaj ak li pardon ñu jàpp suñu candidat ñu jàppee suñu candidat CREI yi hmm. mu nekk tribunal bu nga xam ne nii tey képp ku bugg Sénégal di dox ci intérêt Sénégal hmm. war nga jaaxle ci yi ak décision yi mu jël parce que amul benn réew bu mu topp Karim Wade ëpp na fukki réew ak juróom bu mu indi tey dërëm tegal ko ci table sénégalais yi ne lii dañ ko nangu ci Karim Wade jël nañu suñu milliards fay nañu ay avocat ñu dem def ay commission rogatoire wër àdduna bi ñu def ay tribunal dem ci tribunal Monaco Paris Luxembourg ñu dem ba droit de l'homme groupe de travail ne wax ci ngeen dégg ko si diaawu wax ngeen dégg ko waa Sénégal est-ce que ñun dañu nekk ay baadooloo yu xeex juróom benn fukki at ci Senghor ba tey jóge ci réew moo nga xam ne dañu daan noot bu ñu ne télé bi wax na ñu ne benn kàddu la ñëpp d'accord mhm. ñu mën a toog tey ba ñëpp ne démocratie liberté ñu fal ci ki yor réew mi d'accord parce que ki yor réew mi dogul mhm. ne d'accordatuma ak président Ablaye Wade dafa am injustice bu mu dund mhm. Sénégalais yi fekk ko ci injustice boobu jàpp ne réew ay yoon yoon moo lal ci yoon yooyu wàcc nañu ko tooñ nañu ko. te dañu xeex bëgg réew moo xam ne nii ni day nekk état de droit. très bien une république pour tous. et où tout le monde est égal. Hum, Abiso xam nga léegi ñu ngi doon évoqué wax nga ay bilan yu positif yu positif yi nga xam ni président Wade def na ko fi ñu nga ni léegi euh, nekkul bilan moo ko wàccee mais ñu bëri ci Sénégalais yi jàpp nañ ni li ko wàccee doomam la li ñu ne dafa bëggoon jóge bàyyi doomam est-ce que doomam boobu Karim Wade narut a tas partem itam. ni mu ni mu taxee ñu wàccee ko du tax parti bi tas te itamit yéen en tant que parti nan ngeen di mën a sampee ndënd ku nga xamante ne si turam nekkul cax ci liste yi. d'accord madame benn dama la wax ni man ñëwuma pour wax waxu personne Abdoulaye Wade fàllul Karim c'est les sections du PDS waa PDS ñoo nekk parti bu war a dem chaque année ci élection ñu daanu ñuy dund ay problèmes. ñu war a dem élection ne Karim dañu bëgg nga nekk suñu candidat waa PDS c'est pas Karim moo demande, PDS ni contre Karim du candidat ñoo ne Karim dañu bëgg nga nekk suñu candidat convoqué congrès congrès bi koy convoqué Karim au Sénégal nekkul ci ci ci mu ngi ñu congrès ne ko bëgg nga candidat mm-hmm. mu ne d'accord ñu voté ko ñu ne keneen majorité mais fii lu li nga wax. est-ce pas une façon bu bëggoon def pression ci état bi. moo tax ngeen ngeen ngeen def choix non attends euh, pression on n'a pas à faire de pression. parce que koo xamante ne mu ngi ci kaso bi ngeen def ko candidat. non mais loolu du pression. ce n'est pas une pression. pourquoi nit ñuy jàpp ne. mënuñu d'accord une seule fois que ni pouvoir bi aussi dafa nekk ci ay pexe. parce que lu waral tax. nga war a mën a atte ay nit. ci yoon yi nga xam ne yoon moo ko lal nga mooy ko. pourquoi nga war a mën a def. tribunal boo nga xam ne ni tey wóor na la ne yow sa bopp sax wax nga ni tribunal bi dëppoo la yoon. nga la ko fa pourquoi et cetera et cetera donc ñun jàpp ne am benn privilège bu Karim am dañu jàpp ne il a le profil parce que président de la république du buur ama lan la ñu dénk la réew nga am compétence tey euh, nit ñi amuñu ndox nga jox leen ndox. nit ñi am besoin pour tali laisse-moi terminer maintenant xam nga dëkk boo dem fii am na règle. Mm-hmm. PDS dafa am parti bu nekk règle bi ñu daanoo ak léegi ak avant ñu daanoo amul dara lu soppeeku ci parti bi nu mu mos a doxee ba fii fii boo fi dugg da nga am contrat de travail moo tënk say say prérogatives ci kër gi d'accord hmm. boo dematee ba yow xajootoo ak bokkatuloo vision ak la majorité kër gi hmm. da ngay jël sa responsabilité ñu fi nekk di kaas di wax du ma nangu lii amul benn règle bu nga à l'époque règle de compétition parce que y a c'était sur la base de la confiance de Ablaye d'accord mu jël texte parti donc nit ñi nangu démocratie parti que ni suñu parti dafa may texte ñi ci texte mm. am ci am. Mm. ko ci ñu bañ ko ku nekk am nga sañ-sañ ne li kat war na xalaat bu baax la nañu ko bokk ci parti bi. waxtaan naa la loolu mais man sama problème mooy nan ngeen di insister di def candidat bu nga xam ne turam sax. la candidature de Karim ci liste bi déjà. sa gis-gis moo gàtt ñu ñi dëkk bi xam nañu ne mënoo ne Karim musul wote. maa ngi ñëw rek luy simple la mu ngi woon ci liste yi. voté na point E. soo demee ci internet nga tapé discours. ko gouvernement bi dañu ñëw ñu révision partielle des listes Madame, duñu génne kenn mais dañu sénégalais waaw carte parce que nous jël suñu 52 milliards pour loolu bi ñu waxee Karim jël avion dem commission bi mu wane ko aduna ñëpp di ko gis ñu ñu enregistré ko loolu du rek ne bind na foofu c'est fini ba abadan mais bu ñu ko waree génneewaat ci liste bi loolu dafa am lu ci code électoral tër parce que su taxuloon na code boobu mën na fa mu nekk mu bindu mais déedéet fa commission bi nekk couvrir zone bi mu dund en tant que sénégalais vivant à l'étranger foofu la dem mu bindu léegi nag yoon moo tëral ne suñ ko waroon dindiwaat ci liste yi dañu war a jaar fii jaar fii ñu jàpp ne loolu yëpp amul dañ jaay doole parce que dañ jàpp nañ ñoo yor nguur yor gendarmerie yor police réduire nañ Sénégalais yi au point ci soumission ba nga xam ne nii dëkk bi lu ñu fi def rek du graaw deux jours ni ñu wax ko après ñu jàll ci leneen. Ah, non mais Lamine Lamine logique boobu la ñu nekk. mais Lamine Ba peut être li nga fi wax yëpp lu ci bëri xam nañ ko euh, li ngeen ci jot a wax yëpp ak démarche yi ci def xeex nangam yooyu yëpp xam nañ ko cest à ci perspective yi ci liñ jëm bu dee mënoon ci jox lu bees. man day wax si neex question mais parce que parce que parce que parce que dama bañ euh, ñu suñu temps insister Karim dana ñëw bu ñëwul élection du am ci réew euh, première fois a ngi ba même discours pratiquement même approche te ba léegi fayut dara yéen a ngi fii point mort ci li ñu jëm léegi nag ci li ñu jëm bu fekkee amul yeneen réflexion yeneen piste pour ñu mën a xam est-ce que fa ñu jëm noonu noonu la ngeen di sàkku nañ ko am man gisatu lan laa la war a mën a laaj Lamine parce que bëgguma yàq sama wax man tamit dama bëgg Sénégalais yi seetaan ñu am lu ñu teg seen loxo. dañ lay jàngal ne la. Hmm. wax bala muy waxu day bala muy neex day waxu. Hmm. le moment de parler. jotagul. Hmm. le moment de parler ñaata ñaata weer moo des si élection yi. xam solo ñun. amul fu ñu toll mois ba léegi wax fu ñu toll amul fu ñu toll ñun hmm. yoonu réew mi moo nii cinq mois pour nga nekk candidat présidentiel da ngeen di wuti parrainage soixante cinq mille au minimum hmm. à soixante dix mille lancé nañ démb la campagne nationale dinañu wër Sénégal hmm. dem wuti suñuy signature bu heure déposer candidature jotee ci conseil constitutionnel d'accord dinañ jël suñu dossier candidat ñu ne waaxoo ba conseil constitutionnel ñu déposé ko ak moom wala sans moom

c'est pas la guerre des idées, mais c'est plutôt la guerre de la force. Ni bëgg ñu noot. ñu toog fii di ne dañuy taal dëkk bi. ñu toog fii di di menacer. loolu ngeen wax de. mais dañuy xeex. Nous ngeen di xeexee. mais moom lu mu jaral président Macky Sall mu wàcc yoon. ba ne suñu candidat du du taxaw. dinañu jaral mille fois plus. pour que ñu rétablissions suñu candidat. c'est le mot d'ordre la dernière question Pape Ousmane. Moi c'est le mot d'ordre élection du am ci sans Karim Wade papis papis ñu li ah papis nga ko tudd léegi. comme sa maam ouais. woy. xoolal li ñu wax la wax Sénégal loolu lañu gëm te ci loolu lañu d'accord. Très bien, merci beaucoup euh, monsieur Lamine Ba, membre du comité directeur du Parti démocratique sénégalais. L'Union nekk di waxtaanee ci jamono ji jëm ci controverse autour de la candidature de Karim